mën nañ ne expérience ak force expérience contre la jeunesse Doudou Sané moo ñu woon ginnaaw ngeen moo ngeem lu verte li ordinateur muy noonu nag lamb ji deux deux deux lay nekk wala 3-2 Doudou Sané daan na ko 3 fois kooku di ordinateur ordinateur daal di daan Doudou Sané 2 fois arbitre bi sifflé na tey la ñuy jàppante war nañu tàggali ko Doudou yaa ngi demee public concentré wul waaw waaw jëlal tànk ba da ngaa bëree public da ngaa bëree public da ngaa bëree public tànk ba ngoy na ci laa xay la laa doole doxul jëli doxul du ci génn déedéet la ilaha illallah du ci génn doole bala waxoon naa ne contre la jeunesse doole doxul jàmm kenn du Doudou Sané ci même réew la ilaha illallah ci yoon waaye lim bare bu ko di fowee kenn du bëree public ndax ordinateur mbër bu saay saay la tey jii Doudou Sané lamb ji dooleel dëgg moo ko ci génnee expérience technique moo ko ci ndax ordinateur yegg na ko fu sori waaye dooro may na xam mu génnaat ci